sëriñ bi mi ngi nuyu mbooloo mi. nañ tey mbég moo sëriñ bi nee na bég na tey mbég moo xam ne musu koo bég. ndax bis bii amuñu bis bu ko ëpp. nee ndax bis bii bis bu bis bu ko ëpp. amuñu bis bu ko gën. amuñu bis bu ko gën. fii ci Bawal. fii ci Bawal. muy bisab Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane. muy bisab Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane. sunu jàmbaar ja. sunu jàmbaar ja. doon kenn ci biir Bawal. doon kenn ci biir Bawal. taxawal fii lislaam ci biir Bawal. taxawal fii lislaam ci biir Bawal. keroog bu fekkee Serigne Touba euh, di ko jox boppam. nee na keroog ba mu fekkee Serigne Touba. bopp àddina ak alaaxira. waaye sama jëm bopp képp taxumaa jóg. waaye sama jëm bopp képp taxumaa jóg. damaa ñëw ñëwaale bool gépp. damaa ñëw ñëwaale bool gépp. ma bëgg lislaam taxaw lambaay. ma bëgg lislaam taxaw lambaay. daa daal di woo Serigne Cheikh Ndiéla taawam. daal di woo Serigne Cheikh Ndiéla taawam. ak rakam yëpp. ak rakam yëpp. nee na dégg naa li Mouhamadou Moustapha ni man bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi damaa dénkoon Ceerno Birahim waxaatuma dara waxaatuma dara waaye man daal na ko dénk naa ne ko dénk naa leen mbirum Moussa. daal ne naggandu naa adduna fi mbéy cër gaa ñu wax ba mu jeex tàkk. ba mu jeex tàkk. ma ma naggalu yowmal xiyaam. fekk fa fa garab gu ma fekk wéeru ca taatu garab ga. ma ne kii kan la. mu ne Mouhamadou Moussa la. ne kon dénk naa leen Mouhamadou Moussa. ne loolu moo nu bàyyi Daaru Xudóos. taaw ba ba ci caat mi duñ ko génn mukk bi ñu ngi lay doon jébbalaat bopp àddina ak alaxira. bi lay doon lay jébbalaat suñu bopp àddina ak alaxira. nga gis nu nga ñàkk noo gis. jaam rek la ñuy doon doon sànq ci yow sa fan gudd. noonu lay ñaanal sa fan gudd. ñoo ngi ñaan njaboot gi barkeel. ñoo ngi ñaan njaboot gi barkeel. sa toogaay ci ci lislaam xam nañu ko bu baax. nee sa toogaay ci lislaam xam nañu ko bu baax. mënees na laa mag. mënees na laa mag. waaye saw doxin. waaye xam nañ ko gis nañ ko. doy nañu sëkk doy nañu sëkk. booluñu laa kenn booluñu laa kenn. dendaluñu laa kenn dendaluñu laa kenn. dendaluñu laa kenn. waaye dañ masal ak ñëpp nag. waaye dañ masal ak ñëpp. waaye dañ masal ak ñëpp. waaye waaye kenn nga ci ñun. waaye kenn nga ci ñun. doo doon ñaar mukk. doo doon ñaar mukk. ñoo ngi sant ñëpp. ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di balu ñëpp paax. balu ñëpp paax. di balu ñëpp paax. di balu ñëpp paax. ñaan sa borom bëri ñu jéggal waaw baax na baax na la ci gis ma gis njaboot bi. waaw loolu rek la woon loolu rek la woon leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bu baax kattan leen. amiin kattan leen si ginnaaw. dafa leen wér. leen ay xew li nga mën a seen passeport ci sëriñ bi. suñu borom téye leen bu baax. amiin amiin dara du ci si. amiin jërëjëf. ñuy sa sa baay bii nga toog ñoo ngi ñaan ci loolu sëriñ Tuubaa. waaw si toog sa baay nga nga nga nga sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey